mouvement anti-gouvernance sombre et tortueuse Macky Sall doon amal fi daje mag ci Touba Ndam daje dajale woon ay responsable yu bëri yoo xam ne ñoo nekkee ci gile kuréel ak yeneen yoo xam ni ñu ngi jóge woon ci yeneen i quartier ngir fekk ji bés bu ni mel. fii ci Ndam euh, mu nekk tàmbali boo xam ne dañ ko fas yéenee euh, def ci Touba gi yëpp waaye itam ci département Mbacké donc tey dañu lancer suñu ay activités yoo xam ni pour euh, non seulement pré campagne la waaye aussi day dem ba campagne. fas yéene accompagner le président Ousmane Sonko pour que le 24 février mu remporter les élections et premier tour. ci biir mbedd mi kuréel gi nga xam ne ñi ngi jàppal tànk Ousmane Sonko di ñaaw lu baax jamono ji nappaate jaay doole gi nga xam ne dañoo jàpp ne njiitu réew mi président de la république Macky Sall moom la nekkee ci bopp réewum Sénégal. gannaaw loolu itam ñu daal di yëkkati ay kàddu yu tuuma daal koy jëmale ci njiitu réew mi daal xam ne nag jamono yi nga xam ne moom la ñu dëmal mu daal di koy li tax nag tey ñu daje fi li ci ëpp doole mooy dañu am ay information que ni nguur gi fi nekk li ko itteel dëgg-dëgg mooy sàcc élection yi muy benn benn bi aussi dafay def ci intimidation muy xoqatal askan wi xoqatal ñi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen parti xoqatal représentant yi nga xam ne ñoo teewal partie au niveau de de de Touba et des régions waaye itam euh, li nga xam ne mooy achat de conscience corruption guerre ngir ñu votel ko donc xam nañu ni euh, Macky Sall ak ñi mu àndal le le candidat Macky Sall ak ñi mu àndal li leen intéressé mooy coûte que coûte ñu jotaat ci pouvoir bi te jàpp nañ loolu mënul nekk parce que askan wi doyoon nañ ci ñoom euh, ñi nga xam ni tey seeni loxo set na ñuy ay nit ñu am valeur am compétence am xam-xam jaar-jaar yoo xam ni permettre nañu fal leen euh, président jàpp nañu ni ñooñu seen candidature jàll na ekkat nañ leen Euh, votel ñu gagné ko au soir du 24 février 2019. Ibrahima Samb ak ñi mu àndal daal di jébaane nguuru Macky Sall gi daal di xam ne ni ñu jël sell bi ci sax ñu ci def seen xel ndax jongante yi réew yi nga xam ne moom ñu tëmal du ci am dara li ñu jàpp ne nag moo ko waral bëri na ay gox yoo xam ne ñoo nekkee ci dëkku sell bi te njiitu réew mi li mu warante ak ñoom du lenn loo xam ne def na ko ci. màgg sot bi nga xam ne dafa jóg pour jële fi lii nga xam ne moo fi nekk. ëllëgal nit ñi huit huit huit huit huit ni yoowu am mënta dugg ci ne wu yoowu aw sànke mënta mënta mënta mënta téye Macky li mu bëgg munul nekk te du nekk itam Touba nag moom sunu Touba la ñun waa Touba incha allahu taalaahu lépp lu ñu man dinañ ko def ci jàmm ak salaam jàkkaarloo ak moom ba ni mu doon ñàkke fii mu continuer di ko fi ñàkke parce que defu fi lu mu fi amee ndam moom ci seen njeextali kàddu nag ñu daal yëkkati ci yenn ci ay jafe-jafe yoo xam ne ay quartier yu nekkee ci Touba moom la ñuy jànkonteel di xam ne nag jonkante njiitu réew yi nga xam ne moom la ñu dëmal li amoon ci dëkk bu seen bii di Touba muy élection yu jaxasoo bii yoon moom bu yeboo njiitu réew mu jënn ci xelam ndax lu ni mel duñ ci bañ dara